moo tax ñoom dañ leen ñu poursuivre pénalement et à titre individuel Sénégal nag li fi nar indi fitna mi ngi jóge ci ñaar ba ñetti catégorie chaque jour ma wax ko administration territoriale néew ñu ñëpp de suba nga gis leen ñu génn waaw song na administration waaye préfet su préfet nga xam ne c'est des ñu ci bëri c'est des démembrements de l'APR su élection jotee ñoom bokk nañ ci liy taal réew mi te catégorie bu nekk nag nañu xam ni réew mi bu tàkkee ñoom duñ ci mucc organiser élection jafewul nañu impartial tolloo leen ñëpp élection yi jaar yoon mais gérer vos petites carrières personnelles nomination pour quelque milliers de francs de plus promotion boo gis quelque milliers de francs de plus la nga war a sànq réew mi ngir loolu loolu dafa war a jeex Sénégal duñ ko nangu ñaareel catégorie bi mooy les forces de défense et de sécurité wala ñi leen di commandé bokk nañ ci ñi a yàq réew mi te ñoom ñoo waroon a garantir sécurité ak stabilité réew mi gis ngeen li xew barki démb Ziguinchor ba ñu njëkkee attaqué bougé wuñu parce que dañ ñoo bett deuxième round bi mu amee ñu duma leen ba ñoom ñëpp a ngi hôpital waxuma la police waxuma la gendarmerie waaye armée la ñu andi armée yéen ñëpp gis ngeen vidéo benn homme politique di jox ordre les forces de défense et de sécurité loolu gàcce la ci force de défense sécurité yi ils sont des complices wala ñi leen di ci liy xew parce que lu am yéeg nañ ko xam nañ ko suñu yaakaaree nag ni waa Benno Bokk Yaakaar dinañ jël le dessus ci l'opposition du ñu bouger fa ñu toog la ñuy toog joxe ay ord ne gars yi bu leen bouger waaye bu duma bi méttee ci beneen côté bi rek nga gis léegi armée sax la ñuy génne armée nationale pour protéger waa bennoo Bokk Yaakaar loolu du yoon na jeex ci réew mi kenn ëppalul kenn fii ci réew mi Macky Sall lan la as nit dong la mandat lañ ko jox mandat bi jeexee mu dem li bëggoon nag créer une terreur généralisée ba kenn du ñeme loolu ko ci moom ba tey c'est lui qui l'a terrorisé ndax yow soo demee ba sa titre foncier yaa ko woowee noonu yaakaaroo lu dul ci ay jënd ay nit pour saboter ay liste parce que buggoo compétition am fa kooku il est terrorisé looloo fi am ñetteel catégorie bi ma waxaat ko mooy la justice sénégalaise nañu delloo seen xel dafa am yoo xam ne rafetul des recours vont être man de am naa ci partiellement yaakaar waaye yàgg naa wax ni justice bi dès qu'un dossier a une coloration politique à 99 pour cent bu ci yaakaar dañ leen di jox ordre ñu def la justice sénégalaise ma leen di wax nag cette justice là Barthélémy Diaz sera le candidat de Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous gagnerons Dakar incha kenn mënu koo tere gannaaw yàlla. lii ñuy def nii dafa ñaaw ci senegal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé la lendemain nga naan da nga koy convoqué moi si j'étais Barthélemy du ma uyu yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañu am nañ dossier bind naa def naa lu ne nommé leen euh, euh, un un juge defuñu ko bu ma demee ba déposé sama candidature suñ ma wooyu du ma wuyu ci demuma respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu benn personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral nañu ko jaral je le ku mu neex nag nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma ma naan incha allah macha allah defuma ko. soo ma ëppee doole rey ma soo ma ëppee doole rey ma waaye je me te loolu rek moo fi des ak Macky Sall bu dee nag Barthélemy day wuy ji maa ngi wax toute la jeunesse sénégalaise lundi à la première heure ñëpp dañu daje gunge ko ba tribunal bu fa kenn xaj parce que il est le candidat de Yewwi Askan Wi il est incha allah le futur maire de Dakar te duñu nangul lenn lu ko gàllankoor kon sama wax du gudd j'appelle toute la jeunesse sénégalaise tous les sénégalais épris de justice ñu jóg def